fois ñoo gis ne Macky Sall ne dafa bëgg a fay ancien premier ministre yi par mois dix millions ñu doon laaj en tant que sénégalais loolu moo ci xalaat. non <laughs> la ko wax <laughs> non mais attends mais ni dëgg ministre bi fay ko dix millions par mois Sénégal un pays pauvre nan bàyyi suñu caaxaan yi dañoo Macky Sall su fekkee li ñu wax am na ñoo ngi ñuy foowee te nag ku ñuy foowee nag yàlla suñu borom àtteeg ñoom kon. parce que réew mi ñu ñëpp ñoo ko bokk muy Macky Sall di man di waaja di romb di keneen kee di romb ñun ñëpp ñoo bokk dëkk bi ñu ñëpp ay sénégalais la da nga bëgg a jël benn sénégalais di ko fay 10 millions par mois mais d' abord kooku bar naa la amal bar naa damaa la amal Sénégal tamit d' ba pare ñu jéem ko xool mën nañ la fay 10 millions mais en condition nga amuñu rendement bu bu positif boo xam ni Sénégal dina mën a am ay 100 millions par mois. ah loolu moom doy na waar day métti ci suñu réew mi parce que boobu budget noonu suñu réew mi attanu ko parce que jamono bi ñu toll nii moom dimbali mag à d'autres façons mais bu ñu amee lu ñuy dimbali wala lu ñuy doxal c'est pour les jeunes quoi parce que man mii di wax ak yow je suis un ancien militaire classe 5-2 85-2 ah j'ai vécu dans l'armée deux ans mais am naa sama métier mais mun naa ne ñàkk mooy moo tax pour le jusqu'à présent parce que jàng naa métier ba nekk tapisserie la mais manque de moyens moo tax actuellement may démerder ci réew mi ndax ci réew mi citoyen laa ci réew laa bokk kon nag ñu dimbali jeune yi toppatoo leen c'est mieux nga jël xaalis bi di ko jox les vieux nga xam ne def nañ seen seen si ba jël seen retrait vraiment day xaw a day war quoi. loolu moom d'accord ñu ci suñu xalaat parce que Sénégal nekk na ci situation boo xamante nii war nañ dépasser loolu tey war nañ mën a décentraliser. yóbbu yenn ambassade yi nekk Dakar ñu yóbbu leen ci régions yi xaalis boobu ñu naroon a jox euh, ñooñu ancien premier ministre yooyu ñu investis ko investis ko foofu noonu employé jeunes yi nekkoon foofu ñu daal di fay mën a dem am ci lu ñu jàpp au lieu que ñuy ñëw Dakar ah, loolu moom amoon nañ ko comme xalaat franchement rafetlu ñu ko. parce que fii bëri na Sénégal ay jeunes ay jeunes yu bëri yoo xam ne liggéeyuñu bu ñu xëyee dañuy gens ñii dañuy sàcc ñëpp. te loolu noonu tey waroon na leen mën a jàppale ku si ne ñu ubbi emploi yoo xam ne entreprise yoo xam ne jeune bu si ne dañ la mën a teg nga liggéey nga dimbali sa yaay surtout ñi nga xam ne dañuy dugg si gaale ñuy dee Sénégal dafa métti trop am na sama benn copain boo xam ne Espagne demoon dañ ko indiwaat te loolu noonu Sénégal war na mën a développer quoi man dem naa tukki naa Algérie dem naa fu ne mais man li ma gis Algérie dafa garaaw quoi hôpital liggéey stade yi lépp Sénégal benn stade boo xam ne da ngay football fay loolu du yoon. grand 3 milliards par kii par loolu daay caaxaan waaw Sénégal xam lu mu war a bàyyi naxaate bi grand vingt et unième siècle lan toon lan nekk ni instant bi monde bi ñëpp a yeewu léegi da ngay sa téléphone tak tak tak tak nga xam lu xew si monde bi d'abord c'est comprendre fi may waxee à propos yi nag jeunes foog ñu foog ñu am formation emploi foog nga am formation bu defee formation après gars après ah mën ngaa parce que nit ki tamit il faut nga formation tamit il faut nga am loo xam ni lii la quoi essayer nga comprendre nga fi may waxee voilà xam ñu ne ok menuisier bi menuisier la mais xam nga ñun sénégalais doon dëgër fit da ngay ñëw ko taxaw ñu loo mën nga ni lépp mais kon y a un problème ku ñëw taxaw loo mën nga ni lépp kon problème am na te tamit gars yi def formation xam nga càpp ci benn branche suivre ko xam nekk ci yàlla baax na quoi. bien sûr parce ko jëlee def ko ay matériel wala ñuy ci jeunes yi. wala ñu jënd ko ay bagages yoo xam ne dañ ciy jàppale xale yi ndaw yi tout tànk yi pour ñu mën am xam-xam boo xam ne ëllëg day jariñ réew mi loolu moo ëpp importance ñu jël xaalis boobu di ko seete ko ko di ko di ko feneen di ko dugal feneen parce que xale yi nekk ci réew mi soxla ko bari na trop c'est important ñi fi nekk soxla ko bëgg métier bëgg a liggéey ñi ngi fi am pukaay ñii jàng nañ seen métier ba mokkal ko mais amuñu moyen pour liggéey mais li ñu war a bàyyi mooy saa bu ñu nee dañuy génne financement ñoom ci seen bopp ñu jaaralal ko feneen foo xam ne ñu ko war a jot duñ ko jot kooku c'est pas intéressant loolu la ñu war di contrôler financement yi saa buñ ko joxee tey dañ ko war a topp su ko bu ba xam fi muy dem parce que lu ci bari bu génnee ci ñoom seen bopp ñooy toppaat affaire bi lekkaat ko. dañuy wax suñ point de vue mais war nañ euh, découvrir xool ko est-ce que dëgg la ak euh, du dëgg est-ce que am na walla amul bu fekkee ne am na nag ñu doog xam ne kii daf ñu yàpp parce que Sénégal fi ñu toll ci situation bi nii li population bi di dund manifestation bi passé rek wane na ko bi ñuy sànni xeer yooyu bu ñu duggee ci station wala euh, kii fi nekk nii Auchan yi lekk rek la ñuy foofu nga xam ne kon population bi dañu xiif. waaw manque d'emploi am fii kon yaakaar naa xaalis yooyu suñ ko naree jël pour jox ko ñooñu war nañ ci créer ay usines wala lenn luy indi ay emploi ak fi dëkk bi toolu franchement loolu lañ doon xaar ci ñoom nag ba léegi gisuñu ko kon ñemewul def loolu quoi je pense. no xaalis boobu sax man sama sago li si am xaalis mën nañ si dimbali nit ñi te xaalis mën nañ si dimbali ñi xam ne dañ gaañu. kon ñu rey si affaire Sonko Macky Sall bi yooyu noonu Adji saar bi tamit ñoom mën nañ si dimbali ñooñu parce que ñooñu instant yi seen i waajur ñoo si des ñi si des ñëpp vidéo la Sénégal dafa métti quoi. billahi war nañ mën a defaraat nekki li am am du dara ay oto immeuble dara nit loo am am am boo dee mais 7 mètres per cas lañ lay suul kon gars yi war nañ mën a defar war nañ defar nekki li quoi. yow garaaw soo bëggee noppalu nekk jeune bëgg a noppalu da ngay jël nguur yi nga zappé leen teg leen nee. zappé leen gis nga waxee. ba nee naa la trois ministres Macky Sall mënu ma leen wax lijjantiwu ma leen xam lu may lijjanti lu ma def ba am xaalis bu lew yóbbu ko sama gàlle parce que gis nga bëgg a jël lépp nguur gi nguur gi nguur gi nguur gi nekkul lu ñu fi de seen bopp lañ fi nekkal Sénégalam nag bu jàpp ni nguur gi mu mu ngi lay liggéeyal ndax nga sa bopp. doogu ma la sax parce que boo gisee président nekkoon na ancien premier ministre ak Mimi Touré ak ba ci Idrissa Seck ñoom nekkul à benn côté ñoom ci seen kii quoi. ñoom ñëpp ñoo far politicien grand grand grand waaye caaxaan waaye politicien Sénégal Sénégalais da ko bëgg a wax ne ko waxoo dëgg nga rus ko. nga rus ko quoi <laughs> non sa waaj politicien la quoi <laughs> parce que <laughs> ñoom soo ne non mais attends étiquette bu leen njëkk a tegal moom mooy politicien tak moom mooy acca du waxkatu dëgg ñoom ñëpp ñoo far Mimi Touré Macky Sall Idrissa Seck ñoom ñëpp ñoo far benn gang bi la rek Sénégal benn genre lekkaayu xaalis la la ko def nii quoi mais nag lu waay def sa bopp mais yàlla nañu yàlla àtte ñoom. fi mu war a def kay am réew kay booy bëggee mu avancé da ngay jàngal xale yi xale yi ñoo yoram réew parce que ñoo koy mujje ñooy réew mi ñoo yor réew mi mag ñi liggéey nañ ba retraité ñooñu boo leen di dimbali man ngi leen dimbali ci beneen façon. mais paaka ngay wàcc xale yi fële jël xaalis ay milliards di ko def ci vie yoo xam ne def nañ seen àdduna ba pare kooku du solution bu bu tegu ci yoon kooku c'est pas normal kooku man d'accord ma si. ñi ñu jiite xamuñu priorité bi parce que buñ ko xamoon ñoom ni ñuy dundee population bi nii nii duñ ko dundee xoolal population bi ko dëkk micro day mere président pourquoi parce que li ñu war a def defuñu ko suñu njiiti du président bi rek même maire yeeg euh, président communauté rurale yeeg ñoom même boo demee au village on ne parle pas seulement de Dakar seulement Dakar également Sénégal, même ci région yi parce que moi je suis villageois je connais tout ce qui se passe là-bas ñoo yem ay problème ñu nag ñoom ñi nekk Dakar c'est pour cela ñu war a seetaat bu baax ñi ñuy fal ñi leen di fal nañu xool say euh, carte kan nga koy votel parce que est-ce que jar na ko est-ce que pare na pour liggéey.